si mbirum fitna fii ci damay ma koy bamtuwaat rek amoon na ay ñaaw teg yi amoon démb fële ca barke démb ci benn village bi wax Diohi euh, di benn village séeréer nekk euh, booy dem Fatick si yoon bi foofu amoon na tension bu mag fitna bu mag diggante euh, benn sëriñ bu ñuy wax Birasel ak ay taalibeem ak ay chrétien mooy suñu mbokku chrétien boo xoolee naroon la ëpp li naan yëpp tuur yàlla def si ndox mu sell Sénégal dëkku jàmm la nañu moytu yenn fitna yi fitna yi day faral di ay gàllankoor ci réew mais ki xam mooy bàyyiwu sëñ boobu muy Cheikh Ndigal Sène di nit jàmm di nitu diine nitu lislaam jël ay kàddoom ginnaaw bu mu daje taskatu xibaar yi si bërëb boobu nee na moom doomam di Birane Sène jëlee ko si dëkk boobu mu gën a gaawee kenn dootu teg tànk ki may Cheikh Ndigal Sène di kilifa diine ne doomam bu soobee yàlla dootu teg tànk prêche njóole li tax mu jël dogal boobu nag bañ mbir mi gën di jéggi dayoo tànn fu kër jàmbur am na ku fa ñàkk bakkan mooy village boobu tànn fa kër jàmbur loolu dëgg yoon. Euh, bu ñu teewoon tey fitna yooyu dafay gën di indi euh, jafe-jafe te kay jiixi jaaxa civilisation boobu. ma rafetluwaat ko rek chrétien musulman loolu du tey lañ ko gis Sénégal te boo demee tey Popenguine nga dem yenn diwaan yi muy Casamance ba dëkku séeréer yi un partout da gis diggante ju diggante jullit yi ak chrétien yi ñoo bokk ndey tey boo demee tey Popenguine da nga gis benn dëkk da nga gis benn quartier boo xam ni euh, jullit ñoo taxaw da ngay ba am na gis am na fa ay armée yoo xam sax am na foo xam ne ñu dem sax ay jullit fële ci Popenguine am na waaw lan moo waral loolu brassage bi dafa yàgg c'est des siècles entre les Sénégalais du euh, Sénégal rek am na yeneen réew yu mel ni par exemple au Burkina Faso am na ay chrétiens Côte d'Ivoire am na ay chrétiens. nga dem au Mali euh, musulman yi ñun foofu am na ay chrétien mais ñu ngi lëkkaloo di diisoo di waxtaan bañ a indi ay fitna danañ si yàlla musal euh, ki am mooy Cheikh Ndiol Sène dafa woo taskati xibaar yi di jëgalu euh, suñu mbokku chrétien yi di jëgalu baax si askanu joowin ne loolu du coobareem te bu doon sagoom fitna yi. du am si village boobu alhamdulilah di sant yàlla bu baax di julli bi jàll yàlla def si jàmm def na si ndox mu sent jàmm dellusiwaat na foofu village boobu euh, lii fi am Sénégal kenn ñaan yàlla muy faral di gis ngeen di amul fële ca euh, yeneen dëkk mel ni ay Burundi lu mel ni ay Rwanda ba Côte d'Ivoire bi sax amoon na fi mel ni mais heureusement nguur gi yàgg na jël très rapidement ay motuwaayam. pour moytu ay tension gàcce ngalama Cheikh Ndigal seen xam mooy euh, waajur biram seen gendarme yi takkadeer leen gërëm seen vigilance seen pragmatisme ak seen i ñoom ñoo mujjee assuré euh, karange xam mooy biram seen di euh, un chef marabout du Diola ku mel ni Cheikh Ahmadou Bamba jamono ren dans xarfu taalibe yi ñu dox doxum jàmm fépp taalibe nekk si àdduna la ma doon mission Sëriñ Tuuba jàmm wala mission El Hadji Malick Sy jàmm Baye Niass ñëpp jàmm la ngeen prôné fii Sénégal ak yeneen chef religieux que ñu nag chrétiens yi ñoo bokk réew mi ñun dañuy war a lëkkaloo ñoom di kaf di rey Sénégal loolu mës loolu lañu mës a xam loolu moom a am si réew mi mais kenn ñaanu yàlla yu mel nii di fi amati. keroog yaram euh, li ñu naan yaram daw na am na ay takkadeer ay gendarme yu bëri fa gaañ ak ay nit ñu bëri jàpp ay doomu aadama yu bëri moo ko jàpp ay diggante chrétien musulman yàlla na fi yàlla jëlee te teg ko mu gën a gaay mooy fitna yooyu euh, askan suñu gaaw jàngate bi nag si weeru koor nañu moytu fitna yi koo ko bàyyi loolu mooy suñu la yàlla ñu yàlla musal si fitna yàlla musal ñu si seytaane yàlla defal ñu jàmm si weeru koor bi ñaan ko mbooloo mbir mbokk yi jërë